dafa mel ne sax dafa bokk ci dundinu sénégalais yi wala sax lu munta ñàkk muy bouillon yi moo xam ci biir wala sax yenn ci saf-safal yi sénégalais yi di jëfandikoo te ñu gën a xam loraange yi ndax bouillon yi comme ni koy waxee ñu ngi wax sax na bari na jàngoro yu muy indi waaye am na sax jàngoro bu gën a bari sonal sénégalais yi muy lu demee ne jabet parce que nañ xam ne bouillon yi ay coloron yi ñu koy liggéeyee yooyu dafa amaale suukar boo xam ne nii xorom lañ ko liggéey te boo ko di jëfandikoo da ngay gaaw a am suukar. sëriñ bi di ci indi ay firnde terewul di gën a ñaax suñu mbokki jigéen ñi ngir ñu gën a xam jafe-jafe yi mu leen mën a andil moom. nité war naa fexe ba lépp lu ko indil jafe-jafe mu war koo bàyyi ndax loo xam ne nii sëg mujj sëg dund gis nga ni ñuy feebare da ngay dem ba sax dara du la jot waaye doo jóg ci eh, wéradi yaa ngi dem hôpital yaa ngi naani garab doo tàggoog moom ba nga fiy jóge loolu tamit war nañ koo xalaat ndax loolu amul njariñ dund moom li ci gën a neex mooy boo nekkee mag am sa jaam waaye biig nelaw ma biig sama tànk yi sama yaram yi sama ndigg li sama bopp bi te li ci ëpp yi moo koy joxe ndax mag ñi dawuñ ko jàmbat. am na ci loolu it nag sentir nañu ko ci sunu yaram it nag ndax ñaare la plupart dana yéegal tension te loolu rek doy na maanaam gàllankooru doomu aadama beneen bi ci des it am na ñu bari ñoo xamante ni am nañ ci ay yëg-yëg nee nañ dana néewal kattan euh, góor. loolu it xam nga doy na doy na erreur beneen bi ci des am na ñu wax ne danay metti ay tànk te tànk mooy nit. moom soxna si di xam ne ne saf safal yi moo mën a safal togg yi. di ñaax suñu mbokki jigéen ñi ngir ñu xam luñ ciy jël. naka jekk man mooy dugg ci sama waañ day dimbali jeeg ndax ba mu xëyee ba tey kenn mënu koo piraat wax dëgg yàlla ah man bokk mooy dugg ci sama waañ. kenn ku ne yaa xam na ngay duggee ndax li lay indi sa wér gu yaram ak li neexal sa cin boo toggee tey bu ëllëgee bu bu amee changement. bu la neexee mën ngaa bañ a jëndee loolu ndax nit ki mën naa wax ne doon na ko te doonu ko waaye li jëm ci géej bu baax tamaate njam loolu moom yett yooyu ku ko boole si togg rek lu sa loxo ñàkk-ñàkk maanaa rek dina jëm ca kanam loo gis lu ëpp ga da caa jaaduwut ndaxte moom benn kilo ceeb nga def ñetti masi wala ñetti jumbo loolu moom bu dee dal ne baaxul sax ëpp na loo gis lu ne danga koy def mu yem lu yem rek neex bu fekkoon te tere tey nit ñu ko waxee ni nañ la koy toggee mën na am xëy na liñ siy njort yëpp du ci am waaye nag tey ngay togg kilo ceeb def si juróomi magi jël ajaa def si jël yeneen ak yeneen def si tam ba tey mën na la indil gàllankoor ndax lu ëpp tuur garab gi ngay fajoo sax bu ëppee sa yaram mën na laa gaañ borom xam-xam yu bari di yëngu ci wàllum wér-gu-yaram di gën a artu askan wi ci saf-safali ngir jafe-jafe yu mu leen mën a andil waaye terewul ñenn ci askan wi di wéy di ko jëfandikoo